waaw ah, grand Youssou bon appétit ah ceeb bi na waaw ceeb bi neex na quoi eh, naka moom. sa waay man de dama doon xewlu nii ci ceeb bi ak takk pakoo bi muy gën yow looy déglu nii audio. waaw xaar. am audio boo doon déglu sama ben grand patriote apolitique sama sama papa sax lay wax. c'est un patriote apolitique. Ouais, il fait pas de la politique mais c'est un vrai patriote parce que euh, mi ngi mi ngi def ay audio. waaw xam nga di sensibiliser nit ñi di leen yee. Uh-huh. xam nga mi ngi il est à Paris pas djibal ok ay audio yi nga doon déglu quoi audio laa doon déglu quoi. sinon moom saa yu defee audio su wax si actualité bi daf ma koy yonné moy moy yimay tax ci groupe whatsapp bi rek. ok ok mais naka mu nag yaa ngi si jàmm. waaw alhamdulilah naka dimanche waaye ça va yaa ngi jël air quoi. waaw maa ngi jël air moom. dafa mel ni dëkk bi commencé na sedd ak ngelaw bi nii. tàmbale na de mais bon xam naa ne moom sedd bi moom duñ ko miin sax ndax kenn mënu kaa miin. waaye nag ñu góorgóorlu si rek. sinon actualité sénégalaise bon. yaa ngi koy suivre. waaw suivre naa xam nga Sénégal nag ñoom. waaw dañoo dañoo mën a attardé wu si ay faits divers. maa ngi bëggoon sax ñuy waxtaan ci affaire Ousmane Sonko convocation bi ak la forte mobilisation des forces de l'ordre état bi déployé forces de l'ordre partout bancarisé Dakar mu mel dañ dañu ci état de siège wala nek ci guerre dal mais lolu mom Moustapha no ko lolu loolu war dé yak khalis yak khalis yak khalis yàq xaalis ko jàppee. lutax euh, ah dama xam ne kat ñoo ñëpp bo leen bëggee déplacer. waaw xam nga euh, carburant b, xam nga mobilisation boobu nga def ba mu ko Dakar mel ni ku guerre. Mhm. te yow nee nga da nga wo ben nit pour juste ben audition. Mhm. xam nga ka Khalis peut-être tamit amoon nañ si stratégie bo xamantene ñom amana dañu bëggon bëggoon nit ñi pour euh, pour manam yëngu-yëngu am. parce que dafa mhm. melni yëngu-yëngu moy jamono ji moy sen intérêt. parce que xam nga nit mom instant ñom jaxase carte bi daal lañ bëgg. lutax nga foog moy sen intérêt te yëngu-yëngu amoon mois de mars gaay duma xam nga mois de mars. waaw ñoom xalaatuñu woon ne affaire bi dina toll foofu. Hmm. affaire bi da leen bett. ok léegi nag euh, instant yi ñoom comme ko xam nañ ne dossier boobu noonu ñu andi dossier boobu mënul dara si Sonko léegi nag foog ñu créer ay yëngu-yëngu pour si biir yëngu-yëngu yi ñu buñ ci ut yeneen chef d'incubation yoo xamante ni mun nañ ko ko ci takkal. soit pour dissoudre parti wala soit pour takkal ko dara loo xamante ni ñoom mun nañ jàpp si loolu pour mën ko tëj. kon daal ñoom dossier sur dossier lañu bëggoon. loolu dañoo bëggoon si biir si biir dossier bi ñu si biir dossier bi ñu xam ne dossier moom moom bii moom daanu na moom. Ah. si biir dossier boobu dañ bëggoon créer si yeneen affaire yoo xamante ni nii dinañu mën a sonal sa waay. kon Sonko dafa dissuader seen plan bi quoi. ay cuune lañu no gis nga gis nga dossier Sonko Adji Sarr bi xam nga ci maa la expliqué ma ne la gars yi man mii sax buñ ma jëloon euh, c'est-à-dire bu mu la waroon conseil si affaire dossier Adji Sarr bi. Mhm. xaw ma dina si jàpp Sonko de mais au moins man dina si def loo xamante loo xamante ne ñoom defuñu c'est ay cuune leen yow mënuloo yow bàyyi nit nga ne nga ne da ngay ottal nit nit ki ñëw dugg suite boti ba génn ba dem ngeen door woote ne waa ji ñëw na fi violé na ma léegi nañ dem police te yow doo bàyyi instant bi fa Sonko nekkee man bu doon man maa doon tëgg plan bi laa lay wax bi fa Sonko nekkee da nga Adji Sarr da nga ko naan wool ñee téléphone ñu ñëw taxaw si buntu kër gi moom na hmm. jékki-jékki këdd bunt bi rek poñe Sonko na si mu xotti ay yëram sax poñe Sonko rek gëttam ko gars yi filmé ko ni nga gars yi bu ñu filmé woon Sonko muy buuxante Adji Sarr ay bàyyi ma ay bàyyi mu poñe ko kii ñëw pes Sonko xam a cooli kii Sonko ne fa di défendre boppam vidéo boobu rek bu ñu ko amoon même après bu ñu mënul prouver viol bi sax mais jugement moral. yàq der bi quoi jugement mooy jugement moral bi moom. dina metti mais jugement moral bi rek di leen yàq deru parce que dinañ ko gis mu nekk benn xale bu jigéen ñuy poñe woon teg xam nga di xëppante suuf xam nga. yooyu leen waroon def mais loolu amoo dara loo ci mën a jàngee yow. wayamkuru na wayamkurullah wallaahu xayrul maakirin maanaam. léeg-léeg ngay ñëw di fexeel nit. fekk pexe boobu yàlla moo koy dissuadel boppam pour suturaal doomi aadama bi. waa ji nag la kenn xamul lu mu doon. <laughs> c'est que loolu mooy kenn xamul lu mu doon. xoolal rek gars yi li ñu def yëpp erreur sur erreur erreur sur erreur ba si ñi nga xamante ni nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo waroon mun a sax takkal Sonko. Hmm. muy capitaine Touré. wala gynécologue beeg. ñooñu ñooñu Ndeye Khady Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye ak yàlla def ñoom ñëpp nekk ay nit ñu ragal yàlla. ak maman ba co masseuse bi co co masseuse bi. moo tax Sonko la kenn xamul lu mu doon moo tax gis nga nit. waaw nekkal si yoon bu jub rek. Hmm. nekkal si dëkk rek. Hmm. nga yoonu dëgg moom boo ci nekkee coow lay bëri rek. Uh-huh. mais xoolal. Euh, yalla à chaque fois de lay sutura de de da lay suturaal. Mhm. waaw léegi audition yam bi nak ak révélation yim ci def après son audition face au et des juges bim guenné gis nga révélation yim def. waaw gis nga as gis nga man man instant bi euh, dernier discours am bi ma ko dégloo. waaw surtout amna ci ben ben benn partie xam naa après naa si revenir. waaw gis nga partie bu ko dégloo dama né internet instant bi bu ñu demoon nga tapé mot courage. Mhm. est-ce que ça du photo ko muy guen <laughs> il est courageux. non non non gis nga xam nga nit nit kese la. ndeysaan waa ji euh, xam ko mos di musa def yëpp man xalaatoon naa ne bés dina jot mu woné ben ben signe de faiblesse. Quoi? xam nga nit nit kese la. mais bo bo léegi le gars il est resté mais lui-même intact. il est serein. serein courage bi na ci moom. xam nga te li wax nak leer na ñu ñëpp déggu nañ ko sax. parce que de toutes les façons moom euh, dossier bi moom li siy xaw yëpp yaakaar naa picc yëpp sap nañ ko. Mhm. li si xaw yëpp xam nañ donc on va pas euh, refaire le procès. Mhm. xam donc mi ngi déroulé agenda am Sonko man loolu la jàpp. Mhm. mi ngi déroulé agenda am léegi nag ñi doon nekk fii nag di. jaay sen genre waxu daanu serek yooyu na ay na wuy ji na wuy ji te xam ne nit mënul wuy ji te woowuñu ko légui nak wuy ji na

si le bokkoon kañ. aji saar sax aji saar sax bu génnee di wax légui léegi waxatul wax yoy waxatul waxu ëmb en plus. <laughs> wa ak ëmb bi wa yow waxatoo ëmb wax dëgg nga ne nit ki jox ma sa dërët. mais légui yow yow attends yow yow yow ñoom ñoom newoon nañ yoron nañ ay vidéo way ki ay détails ay photos yu kenn xamul légui fa lañ mujj jox ma sa dërët gis nga. Euh, bu ñu tardel nit ñi. il mhm. y a beaucoup plus important dans ce pays là. Mhm. xam nga que que ay ay kii il mm-hmm. y a beaucoup plus important. il y a vraiment beaucoup plus important. Mm-hmm. léegi nag si vous mm-hmm. euh, il est courageux. c'était par rapport à dama ko Burkina Faso temps est passé biñu biñu ambassade France. Uh-huh. di saccage foofu di ki boobu bi ñuy def seen manifestation yi rek. waaw jël drapeau Russie yëkkati ko. brandir ko. waaw nee na moy nga jóge ci ben domination <laughs> pour dem kenen dominer la. demaat ci beneen domination. nee na ñun soxlawuñ loolu. te ma ànd Cheikh mom deug la gis nga nit da ngay gëm sa bop uh-huh. c'est pas parce que da nga wara dégager France bon dégager France c'est entre guillemets hein? mais c'est pas parce que da nga leen war dégager que da nga wara andi forcément Russie pour ñu continuer di la note non nit ki da nga wara souverain. Mhm. man lool la gëm. Mhm. Ousmane Sonko neexul ba neexul mais jamono ji li wax. Mhm. ba paré diko jëfé ben acteur politique au Sénégal def ko. deug <laughs> la motax mu sul ñep motax mu sul ñep ciolé fi ne gis nga gaay buñ doon naan le fait que bii passé le fait que mu am 15%, c'est parce que Khalifa ki kii nekk ñu fi lool c'est faux. Khalifa ke buñ fa nekkoni Sonko tew li mu am da koy am. parce que la preuve. Sonko rek nek fi won euh euh candidat. Uh-huh. lan moo tax ñeneen ñi amuñu lool dëgg mataluñ sax parrainage. Uh-huh. donc Sonko bu ko amé c'est du mérite. Uh-huh. te gis nga te affaire baa ngi du ne di émerger nañ dem ci ci kanam ba ci kanam Sonko instant Afrique ci bopom dama damay la la dernière fois am ben benn non il m'a parlé de Ousmane Sonko. de Ousmane Sonko oui. waa ji instant yi romb dimension romb na romb na romb na Sénégal. ñoom sax am nañ Sonko foofu noonu mooy ku jiite les transformeurs. les mais mais léegi yow li nga wax ci Ousmane Sonko yëpp ak idée yi mu am ak courage bi nekk ci moom. Mhm. waa léegi lan moo tax waa Kër Macky Sall yi ñoom mënuñ di tontu Ousmane Sonko ci argument ak programme mais ñoom ay saaga la ñuy tontoo ay calomnie ay waxu viol ay waxu merci daal ci ci ci ñoo xam ne état lañ jiite. Ousmane Sonko il avait démarré par ça Mom, nous rek bon, xam ba léegi ba léegi sax def ko genre attaqué nit ñi moom dafa ñëw andi livre am. Mhm. expliqué teg ba pare ne leen nous ñu débat. Mhm. jour bi présente présenté livre mais jour boobu non le feu journaliste taxaw ne ko sa jabar day muuru <laughs> mais loolu ban rapport. Yérim Seck ban rapport la am. ak ak ak livre bi waa tech. teg. Mhm. lan moo tax attaqué ko ci ay débat parce que nous nañ ne foofu noonu duñ fa am ndam. ñu ne nag.

nit koo xamante ne dafa jub saawaay euh, salaire am gis ne nu mu ko def diviser ko entroit trois. Mhm. bii mu yóbbu ko Popenguine euh, bii mu jox ko jigéen yooyu noonu di bay Casamance. transformatrice yi les femmes transformatrices. waaw mu jox leen ak pouponnière bu nekk Kaolack. pouponnière bu nekk Kaolack voilà Bongre. man lan moom mu dugal si Popenguine sax <laughs> mu yóbbu ko si pouponnière bu nekk Kaolack. waaw léegi nga xam ne kii moom ay alal taxu kaa jub. Mhm. xam nga koo xamante ne parcours am ak discours yëpp gongo. Mhm. Salay kooku gars xamné ki kat ah woo nañ ci ay idée mënuñu ko fek ci ay idée parcours amul problème lay foog ñu andul ko ben ben créer ko ben dossier mhm. ba pare lolo andi affaire Adji Sarr bi mhm. dossier cuune te li ma si gën leneen ma ci métti moy instant biñ ko wo soo ko bo bëlé bëleeg nañ ko wo mais lan motax ñu bàyyi bu mu démarré némé ko touram ñu ñu bëgg dag ñu dag dagg nemmeeku tuur bu ko wo mhm. mais bu ko yé fin na Sénégal rek lool moom ki mu esquiver sen affaire dem wuy ji. Mhm. dem wuy ji ñu bàyyi ba mu dugg si biir ñu dem jàpp ay. ay <laughs> garde du corps. jàpp jàpp naan naan naan leen arrêté. loolu loolu sans mandat d'arrêt sans convocation. loolu enlèvement la. la dañ leen séquestré. yi yi yi xool genre affaire yi. Afrique rek la am. Afrique rek la am. tubaab bi xalaatuñ ko def. mais nañ dawal. waa léegi yow loo xalaat ci gars yi ak Sonko maanaam ñoom ndax mënal nañ Sonko dara. ah bon jàpp ma ne mën na leen ko dara parce que gis nga. <laughs> Macky Sall il a pas vu venir gis nga Sonko 2016. Mhm. su ko jàppoon su boobu bu ko bu bu bu créer woon benn dossier wala instant bi Sonko di dénoncé mu ne waaw kii day génne ay secret d'état affaire yooyu noonu jàpp Sonko. Mhm. foofu mënoon na ko jàpp cool yi dina bëri de. mais boobu Sonko tollagul woon nii. amagul ampleur Bob. voilà Bob yaaw jàll woon si làmb ji. Mhm. bu ko jàppoon rek mënoon na ko fi tëj. affaire bi jeex. mais dafa bàyyi nag ba Sonko doon punkal. saa waay nga bëgg ko attaqué mënatul ne. mais début bi est ce que ko won mom la moo tax ma il a pas vu venir. Mhm. xam nga moy loolu léegi nak instant bi Sonko don na ki mu don mhm. mënatul ci mom dara. mom ñaara mën a am na organiser inshallah rabbi 2024 suñuy élection yu jaar yoon. Mhm. xam nga si élection sax bëgg parce que audio ma doon déglu nii Paa Jabel si loolu doon wax. élection yu jaar yoon. waaw abal ñu. wa ila bu talé dëkk bi mom si bopom bu moytul du ci muccu te Mar Macky dafa melni ni dafa nek entre le marteau et l'enclume manam euh, entre le marteau du troisième mandat et l'enclume de l'élimination d'Ousmane Sonko manam bu waxé né day def troisième mandat gaay dal ci kaw mu né day laal Ousmane Sonko timit peuple bi day dal ci kaw wa xam nga problème am moy xam nga Ousmane Sonko principal adversaire am. waaw du Macky. ok c'est la France ñu ñëpp xam nañ ko. hmm xam nga te te Macky man xaw ma dafa am lu mu digaalanteeg waa France je sais pas mais xam naa ne daal instant bi France ñoom xam nañ ne Ousmane Sonko du leen arrangé parce que ñëpp dégg nañ li muy wax xam nga te Sonko dafa doon genre nit boo xamante ne leeral kii bu màttee day dagg surtout ñu boo xamante ne li ngay matt yaa ngi ko màtt si dëgg ama dëgg moom boo fa taxee da ngay dee rek mais doo fa jug dëgg la voilà léegi nag yow da lay leer ne Macky instant bii nii waa France ñoo pareegul sax pour Ousmane Sonko yor Sénégal loolu moo tax affaire bi métti. France lu tax ñuy décider ci Sénégal. ah France Ousmane Sonko nee na moom jotewul France dara mais mom. dafa nekk c'est un souverainiste Madame, Donald Donald, le mën nañu am ay collaborateurs mais nag ñooñ duñ ñëw duñuy ëppale si suñu ay ressources minières. Donald, donnaa boobu moo tax mu jotee ak France. parce que France moo bëggul Donald Donald. France il veut tout euh, il veut euh, toujours avoir la main mise sur sur sur sur ses colonies. la France mange. Euh, l'argent et l'argent du le beurre et l'argent du beurre. voilà mais donnant donnant boobu France du ko nangu mais Ousmane Sonko mom loolu lay woote loolu mooy souveraineté. ok loolu rek moy loolu moy pro moy principal problème bi parce que xam nga yow kuy taxaw naan la xam nga franc CFA bi su fi ñëwee dañ koy dindi parce que du suñu du suñu arrangement te muy deug mhm. xam nga ku taxaw naan la suñu yenn contrat yi ñu fi jot signé bu ma ñëwee dañ koy renégocier. xam nga on on va traiter d'égal à égal. ça mhm. va man kooku la gëm.

de de ñom wa APR yeb bu ñu sañoon Ousmane mhm. Sonko du falu nak wax na len fa mu jëm mhm. neena len man fi ñom yéen ñep di ngeen rendre compte donc lepp lu ñu mën pour mu baña don candidat di dinañ ko def mhm. waye nak dafa fekk ne euh, manam pexé yalla mom le ken mënu té gis nga as yalla bu <laughs> yalla bu tracé nga ne da ngay effacer yalla yow lay effacé tracé Macky Sall moytu looloo ko nar a dal parce que Ousmane Sonko mii kat ku ko xool nii ni muy demee nii. nga xam ne kii euh, maanaam yàlla tracé na. léegi yow rapport de force bi diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall yow pour yow fan lay mujjee ak kan mooy mujj am ndam gis nga ne Ousmane Sonko mën na ci am na si am ndam man kay li ma li ma si li ma ciy metti. waaw mooy euh, maanaam il faut mettre le le le pays euh, dans le chaos quoi. jaral na ko Macky Sall yow pour yow. jaral na ko ko parce que ni nii nii mu jugtee nii. da leer ne kii moom dafa ma ni looloo ko gënal. xam man loolu rek moom si mettre xanaa xamoo man dossier Sonko aji Sarr bi nii. Mhm. dossier bi li ma si mettre rek mooy 14 morts yeeg plus de 500 personnes yi nga xamante ni ils sont blessés ñi ñàkk seen liggéey man loolu moom si metti mhm. man te loolu j' espère que rek euh, dina dina lumière dina mës a am si si si quatorze morts yooyu parce que da leen suur sans autopsie ni rien du tout. Mhm. imaginez 14 familles au Sénégal ñëpp a nekkoon en deuil. loolu dafa metti quoi man loolu rek moo ma metti si dossier bi. te dossier boo xam ne pour éliminer un adversaire politique la yëpp ci ay fen la. yépp ay fen ak i ba ay nit dee ci. kat dafa bëri. ak blessé yeeg ñi ñàkk seen alal man loolu te da leer ne nag moom bu fi annoncé troisième mandat am wala bu fi jéemee tëj Ousmane Sonko pour mu bañ a nekk candidat lu pire loolu moo ndara am. te man loolu rek lay dawal Sénégal quoi. waa léegi Macky lu tax mënul am ngor comme ni ko sénégalais yi joxe woon réew mi mu sedd guy démocratiquement mu delloowaat sénégalais yi noonu xam ne sénégalais yi ñoom niñ ko gisee woon bëgg ko noonu lañ gisee keneen bëgg ko. mu mu gëm yàlla quoi ba pare indi stabilité ci réew mi. Macky Sénégal yi gisuñu ko woon sax bëgg ko Sénégal yi dañ doon éliminer Ablaye Wade rek tombé ak Macky. waaw par défaut la quoi. kenn falu ko dañoo folli Ablaye Wade. c'est un président par défaut quoi voilà donc vu qu'il nous fallait un président mu tombé ak moom gars yi fal ko. Mhm. Macky. Mhm. ba mu falook léegi xoolal rek.

dinañ ko abal ci nii rek wala mu dem ci ñu ñu ñu dem ci confrontation ok wax jaa ngi noonu as. waaw léegi lan ngay tàggatoo. waaw di wax ne ce euh, bon ce qui est malheureux au Sénégal mooy. Mhm. Euh, parfois booy déglu yeneen yeneen yeneen médias yi surtout fii nii. Mhm. da ngay gis gars yi ils parlent sur des sujets mais mais vraiment important quoi. xam mhm. gars yi dañuy wax si si si si si wàllu économie wàllu industrie. xam nga wàllum. Euh, Euh, travail développement taux de chômage xam nga détail demee mais ñun Sénégal ñu nekk ci ay affaire de ay ay ay ay ay faits divers xam nga ay ay ay ay nit ñoo xamante ne saawaay amuñ dëkk benn njëriñ ñoon la gars yi invité ci plateau télévision yi xam nga ñu ñu ñu ñu amee écran yi di ñu wax ay waxu du n'importe quoi xam nga ba ci ñeneen ak ñeneen c'est parfois doo bëgg tudd tur mais ay nit ñoo xamante ne mooy loolu quoi mais ce qui est regrettable tamit mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite réew mi am ay ndomba tànk di ay ministre ñoom ñooy dem ci plateau télévisé yi au lieu que ñu wax fa xam-xam di fa wax ay waxu Merse ay Adji Sarr ak Ousmane Sonko di di organiser ay conférence de presse. mais boo demee ba yow sa président laa la wax. waaw di di di di di di recevoir si palais bi. ay ñoo xamante ne ay saagakat liveur taxaw di saaga ay kee yor député naan xaw ma lan ñëw ay ay saag boo xam ne naan naan sama goon xam nga détails yi demee noonu c'est que moo lay wan ne ñun Sénégal on est mais mais mais vraiment en retard quoi man man loolu loolu loolu moo ma métti si dëkk bi te loolu noonu laa bëggoon tàggatoo na gars yi wax si sujet yi nga xamante ni dafa amal njëriñ dëkk bi xam nga suñu matière première bi ñuy génne dëkk bi di ko yóbbu saawaay euh, nañ wax si yooyu ñu jéem a créer ay entreprise xam transformer fofu suñuy suñuy li ñuy bay koy jaar jaar ko ci dëkk bi yok emploi bi mo gën ngay lu gaay bay rek mu gën ñu dem transformer ko à l'extérieur andiwaat ko ngay consommer. mais man limay may jaaxal débat bi nu mu nu mu bàyyee manam niveau débat bi ni ñu ko wàccee ba mu suuf niveau bi. Mm. loolu jógeewul ci opposition bi parce que Ousmane Sonko moy principal opposant mais koku mom ay programme lay wax mais ñële ñom duñu génnee ay saga la wax ba paré recruter ay kat ñu dem ci télé yi journaux yi tamit ñepp lañ jënd ñom timit dénigré. mais nous Moustapha doyna war malheureux c'est ce qui est malheureux suñu dëkk bi ndaysan mom mom mom lay doxé quoi te même bo xolé parfois si télé ñi nga xamanté ne gëna wax ay bêtises ëpp ay ñi nga ay xam-xam la wax développé dëkk bi gars du leen sax du mais changement par force day am yow gis nga vent bi di ñëw mhm. rek na mhm. gis nga les jeunes sont déterminés

xam na li muy wax bari na xam-xam. Mm. parcours am macha allah. Mm. xam nga ba pare nga teg ci courage am parce que loolu c'est important. yombul la am courage maanaam yow jàkkaarloog armée euh, police ak gendarmerie ak état beeg yooyu yëpp nga am courage boobu noonu yëpp loolu yombul sa waay yooyu yëpp lu dajaloo nekk ci nit ba pare mu tombe mu am population bi nga xamné doo ko doon deug mu doon une population jeune mhm. légui sax mag yi dugg nañ ci maire yeeg paa yeeg yëpp waaw paa yeeg koy xëccoon toog jeune xam lool non noonu bu dajolo ci mom sa way da nga am espoir te espoir boobu noonu non yalla bu suñu yaakar tas te gaay yi commencement biñ koy songu di def calomnie ci mom diko du di deram di saagaak di xasté diko ko li lii lañ si jubloon pour mu décourager bàyyi parce que sénégalais dafa ragal ku koy xass ak yàq deram loolu lañ si jubloon mais waa il résiste toujours pour ma la dal yàlla bu suñu yaakaar tas si Ousmane Sonko. allahumma amin jaajëf Moustapha. jaajëf El Hadj As. di la bëggee bu wér waay sama waaj. jaajëf siyaar nañ.